asalaamaaleykum euh, mbokki géewul asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi fii tey ci euh, centre de santé bu géewul tey di waral euh, taxawaay géewul Art TV tey tey dañoo commencé ñàq yi nga xam ne moom la ñuy def muy deuxième dose bi troisième dose bi nga xam ne moom la ñuy jël ci vaccin yi Covid bi moom la ñuy tàmbali fii ci centre de santé bu géewul ñu leen di wax ne képp koo xam ne rek yaa ngi nekk fi géewul rek ak li ko war rek nga teew fii ci centre de santé bi ci euh, euh, vaccin yi nga xam ne moom lañ fiy def euh, kon ñu dugg ci biir taataan kàddu yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ak ñi nga xam ne ñoo jël dose bi tey di vacciné wu kon ngeen topp Géewul Art mu dugg ci biir wan leen li nga xam ne moom moo xew fii ci centre de santé bu Géewul rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di nuyu waa Géewul ak seen internautes yëpp eh, di nuyu docteur médecin chef madame Ndiaye di nuyu secrétaire exécutif eh, Thierno Diaw di nuyu ñu fi toog ñëpp di wax ni alhamdulilah jël nañ sunu troisième dose parce que li wax askan bi mooy corona bi mi ngi fi ba léegi et que gouvernement dafa décider ñi amoon deux doses ñëpp ñu jëlaat seen troisième ñi amul woon deux doses ñu continuer ko parce que corona bi mu ngi fi ñu ngi ñaax population bi yëpp. ñoom ñëpp ñu ñëw ñakku ci centre de santé bi am na aussi ay stratégie avancée yu ñuy def fekk ñenn ñi ay ñuy tudd ay personnes vulnérables pour mën leen ñàkk ñu ngi ñaax ñëpp ñu ñëw vacciné wu euh, aar seen bopp aar ñi leen ñi leen jege asalaamaaleykum wa rahmatulah. ñu gis ñu gis nga jël sa euh, troisième dose. ci hmm. li nga xam ne moom mooy ñàkk bi. tey hmm. nga nekk maire Géoul askan wi nga xam ne ñu hmm. ko ko tey. waaw mooy comme li ma wax rek di ñaax ñëpp ñu ñëw ñàkku parce xam nga. aar sa bopp moom dafa am solo mais aar tamit ñi nga nekkal surtout nag jeunes yi laay gën a ñaax pour ñëw ñàkku peut-être ñoom am nañ benn capacité immunitaire bu xaw am doole mais ay mag la nekkal te mag ñooñu ba léegi soxla nañ leen ci dëkk bi moo tax comme ni ko gouvernement décidé rek ñun ñëpp nañ ñëw ñàkku aar sunu bopp aar ñi nga xam moom lañ jege te bañ a déglu yenn wax yi moo tax ñun ñu ñëw njëkk jël suñu dose pour ñëpp xam ne ñàkku nañ euh, ñeneen ñi aussi mën a mën a ñàkku donc daal ñu ngi ñaax ñëpp ñu ñëw jël seen dose yombal aussi cent de santé bi eh, liggéeyam ba taux bi ni am ci vaccination yi nekk taux bi gën a élevé ci région bi jërëjëf. Alpha nga teew fii tey ci euh, centre de santé bu Géoul nga doon président CDS bi nga xam ne yaa nekk fii ci Géoul mhm. tey ñu gis nga jël sa troisième dose ci li nga xam ne mooy ñàpp bi mhm. yow mi nga xam ne yow la askan wi délégué fii ci li nga xam ne mooy centre de santé bu Géoul mhm. tey ñu ko gis askan yi wan leen ñàq bi nga xam ne def ko tey yan kàddu ngay gën a ñaax askan wi nga xam ne ñoo nekk ci waa waaw asalaamaaleykum euh, maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu la population géewulaase donc di leen wax ni ñi ngi jël ñi ngi doon jël ni suñu troisième dose parce que tout simplement état bi dafa euh, donc lancé waat benn benn de vaccination contre euh, donc le Covid donc képp koo xam ni am nga 18 jëm kaw mën ngaa ñëw centre de santé bi donc am na donc ñetti façon donc vaccin yi ngi fi boo ñëwee nga xool bu la ci neex nga jël ko parce que corona bi jógewu fi mi ngi fi ba léegi donc ñun population rek ñoo ko fi mën a jëlee ni ñu ko fiy jëlee nag mooy euh, ñu ñëw jël suñu ay vaccin protège suñu bopp protège aussi donc suñu waa dëkkandoo. Euh, nit ñi nag am na ñu bëri ñoo xam ni donc damay dégg ñu naan vaccin yi vaccin yi te vaccin yi ñi nga xam ni ñoo defar euh, garab yi nga xam ni boo siburoo ñëw centre bi ñu defal la ko nga wér dem ñibbi ñoom ñoo ko defar boo xoolee Europe ñu ngi seen quatrième ou seen cinquième dose kon yaakaar naa bu doon lore ñoom lay njëkk a lor vaccin yi man bi mooy sama troisième dose macha allah euh, gisuma ci dara loo xam ni donc anomalie la. Euh, donc dañuy sàmm aar ñu si li nga xam ni mooy jàngoro bi kon population bi ñu ngi leen di lancer appel yi ñëpp ngeen ñëw centre de santé bi jël seen dose ñi nga xam ni mosuñu vacciné wu nañ ñëw ñi nga xam ne am nañ benn dose nañ ñëw renouveler ko ñi nga xam ne am nañ deux doses nañ ñëw jël seen troisième dose loolu mooy appel bi ñuy lancer population bi. ñu ngi lay seen euh, teewaay ci fi nga xam ne mooy centre de santé bu Géoul ñu yàgg dégg ngay jëm ay message ci rajo bi nga xam ne mooy rajo Géoul FM ci wàllu ñàkk wi tey nga teew fii ci Géoul at TV tey ñu gis nga wan askan wi ne lii lu am njariñ la tey nga euh, def message boobu tey yan kàddu ngay gën a dolli li nga xam ne mooy askan wi nga xam ne wër nañ la ci tund bi ak fi ñu mën a nekk rek ci réew mi. bon salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñi ngi nuyu ñëpp di dolli di santar yàlla. di wax ni li tax ñu vacciné wu pour wan ko askan bi mooy dañoo gis ni feebar bi feebar la boo xam ni feebar bu fi nekk la boo xam ni day day faagaagal ndax buñ gisee vague yi nga xam ni passé woon na fi gis nañ lim fi yóbbu ci ay mag te gisoon nañ lim sonnale population surtout population géewul ndax bu xoolee dans la région yi njëkkoon a am géewul ci la bokkoon te gis nañ vraiment ay garawaale yoo xam ni def na ko fi. te maladie la boo xam ne nag maladie virus moo mel noonu bu duggee cim réew pour mu génn fi il faut ñëpp takku xeex ko pour mu jóge fi te biñ xoolee moyens yi ñu am yëpp pour jële fi feebar bi vaccin kase la ndax defe naa ni takk masque pour nga defloo ko nit ñi yombatul ndax ni ñuy dundee moo tax pour ñu sorante ak ni ñuy dundee population bi tam yombul kon liñ gis ni mën nañ fee xeex pour jële fi feebar bi mooy ñu vacciné wu parce que bu ñu xoolee si ginnaaw tuuti am na des maladies yoo xam nii dañ doon faagaagal lu si mel ne ay ay ay feebar jaune li si mel ne ay poliomyélite muy ay feebar yoo xam ni mag ñi dañ daan wax sa doom sax bu ŋasagul da ngay jàpp ni amagoo doom mais ñoom lan moo fi jóge feebar yooyu mooy ñàkku kase vacciné wu nga xam ni sa yaram dana am loo xam ni lu ko mën a aar ba doomu jàngoro bi bu duggee si yow bu ñëwee du la mën a sonal loole moo tax nag état Sénégal ne dafa bëgg askanam wépp ñàkku lu su commencé su fukki at ak juróom-ñett muy góor muy jigéen ba nga am téeméeri at ak lu topp ñëpp nañ ñàkku nga xam ni feebar bi dana fi mën a jóge ndax feebar bi kat virus la te virus dafay adapté wu mën na ñëw changer forme indi beneet loo xam ni pour ñu maîtriser ko du yomb pour ñu man cee nag gën a fegu ndax olof Njaay danaan fegu moo gën faju te lii ñuy def nag si feggalu bokk ñu ko ce qu'on appelle la prévention kon nag dañuy ñaax waa ngumba ñëpp ak li war ngumba ñëpp ñu vacciné wu xam ne kat dañuy aaru te pour ñu aaru tam il faut population bi jàpp si ndax population bi ñoom ñoo war a ñàkk te tam bëgg nañ kaa yombal mooy képp koo xam ne ñëw nga ci centre de santé de géewul muy si hôpital bi daañu la vacciné koo xam ni itam sa koñ gis nga ni lu ay nit daje nañ fa te seen déplacement yombul bu ñuy woowee ñun daañ ànd ak équipe bi ñëw vacciner leen fañ nekk kon noonu lañ ko bëgg a toppee ba weer bi jeex ba weer bi yëpp mat mais dañoo buñ sañoon nag weer bi ñëpp ñàkk si nga xam ni vraiment daañ am yaakaar ne population bépp seen couverture vaccinale am nañ quatre-vingt-dix pour cent loolu nag pour ñu am ko mooy il faut population bi yëpp jàppale ñu si jàppale centre de santé ndax faju nag li ci gën mooy fegu ndax fegu mooy xodd la ko bala lakkule kon nag ñi ngi ñaan feebar bi mi ngi fi nam doon faagaagale amaana mi ngi wàññeeku mais mi ngi wàññeeku nag ndeeltali mi ngi wàññeeku mais nañ ci profité nag xeex jàngoro bi mu génn ci réew mi génn Sénégal génn ci fii fépp. loolu nag li ñu ko mën a may mooy ñu vacciné wu comme Europe ni ñu koy defee nga xam ne ñoom ñu ngi seen quatrième dose cinquième dose ku nga xam ni amagul benn dose mu ñëw jël si dose am ku am ñaari dose mu ñëw jël si ñetteelu dose ku amagul deuxième dose mu ñëw jël deuxième dose kon daal loolu la ñuy doon sànni benn message boo xam ni di invité population bi yëpp ak ñi nga xam ni tam dañoo wër géewul ti wàllu santé ñu bokk ci géewul ñu ko nappele les douze villages yi nga xam ni dañ leen a rattaché ci géewul si ci wàllu faj ñooñu tam ñu ngi leen di invité kenn ku ne daañ ñëw ci sa dëkk woo la wu ñëw seen dëkk na leen kon ñu ngi si ñaax ñëpp population bi yëpp itam jàppale ñu si yàlla defal ñu si ndam ñu ci bëgg suñu borom defal ñu ko. major ndax ndax euh, li nga xam ne moom mooy ñax bi am na délai boo xam ne fi ngeen ko yemale pour ñi nga xam ne dañuy toog di xaar mën leen a lancer boo xam ne tey fii la délai bi war merci waaw loolu ndax vaccin bi dafay continuer mais dañoo bëggoon ci weer bii nga xam ne état bi moo ne weer bii kat dañoo bëgg am pour centage bu mag a mag ci vaccin yi. ñu ñaax ñëpp ñu teel seen vaccin parce que di xaar loo xam ne ndax li nga xam ne xamagul kañ lay ñëw xaar ko wóorul ndax am ñag sax boo ko ñegee bu yàggee da ngay dàbbali lii nag ci dàbbali lañ toll pour nga xam ni daañ gën a fegu bu baax a baax kon jëru ñuy xaar weer ak benn weer weer wi nga xam ne ci lañ nekk nga xam ni vaccin yi disponible na ne ñëpp vacciné wu ndax mën nañoo xaar ëllëg mu manqué te boobaa ay jafe-jafe lay am mais teewul itam bu weer bi jeexee itam daañ continuer di vacciner feek feebar bi jógewu fi moom vaccin yi du fi mën a jóge ndax vaccin yi rek lañ gis ni moo mën a aar population bi pour ñu mën a fegu ci li naan coronavirus bi kon ñu ngi si ñaan ñëpp di si ñaax ñëpp tam ñu bañ a xaar tey suba ëllëg ngoon ñëpp ñëw vacciné wu ci nu mu gën a teelee. waaw ah, asalaamaaleykum askan ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci sa tur ak sa sant di nuyu nag eh, ki nga xamee ni moo jiite centre bi ak eh, personnel bi nga xamee ni ñu ngi fiy liggéey ñëpp bu ngeen gisee nag eh, ñu teew ci journée lancement bi. da nekk crieur public en même temps communicateur relais communautaire bokk ci comité santé bi kon déjà lu jamono xat-xat ak euh, lu suñu activité xat-xat bu commission santé woote rek rawatina centre de santé bu géewul daan bàyyi suñu activité yëpp ñëw teew le lancement bi nag euh, jëm ci wàllu vaccin yi troisième dose population bi war koo bàyyi xel bu baax a baax askan wi war koo bàyyi xel bu baax a baax parce que remarqué naa ne ci deuxième dose bi demoon na ba nit ñi maanaam xam importance bi mu am ba dañu ñëw ci centre bi ñun leen vaccin yi dafa manqué jox leen délai bu ñuy ñëwaat kon loolu nga xamee ni moom moo leen ñaaxoon ci deuxième dose bi ba nga xamee ni ñi ngi doon ñëw fekk vaccin yi manqué moment bi nga xamee ni vaccin yi disponible na ci troisième dose bi nanu góorgóorlu ba bu leen kenn soññ ci mois bi parce que mi ngi tàmbalee ci 18 ans ba âge boo mën a am parce que nag jàngoro xoolul mag xoolul xale xoolul góor xoolul jigéen xoolul làkkat xoolul pulafuuta ba xoolul manjaago ba parce que bu jàngoro dikkee rek day faagaagal te kenn ku nekk boo yewwoo ci jamono xam ni eh, corona bi li mu rey ci ay kilifa ak li mu rey ci ay mag ak li mu rey ci ay personnalité ci ci année bii musuñu koo am benn dese ci benn année kon yaakaar naa ni askan wi war nanoo bàyyi loolu xel bu baax a baax ba mois bii nanu góor góorlu ba vaccin yi ñoom ñooy ñëw fekk vaccin yi jeex mais bu nu góorlu ba bàyyi fi vaccin yi ba fi mu toll nii taux bi nu waroon a am duñ ko am kon loolu mooy message bi nga xamee ni ñoo ngi ko doon lancé askan wi di leen ñaaxaat bu baax a baax euh, vaccin yi nag moom amul jour heure boo ñëwee ci centre bi rek incha allah daañu la vacciner parce que bul ne tey samedi la wala tey dimanche la duma dem heure boo ñëwee danga nga fi fekk koo xamee ni dana la orienté ban man la vacciner te booy ñëw nga indaale sa carte bi nga xamee ni mooy wane ni première dose deuxième dose troisième dose moom ngay retenir moom la ñu gën a mën a ñaaxaat nit ñi pour ñu mën ko bàyyi xel influence am na ci boo xamee ni bu nu yàqee xelu nit ñi rek yow ka nga xamee tey fi mu toll nii mooy wér dana fekk ka vacciné wu ñëw ki vacciné wul am jàngoro boo xamee ni danaan man bu ma yëgoon bu ma yëgoon nag tey fi mu toll nii moom moo yàq jamono. parce que man dama koy faral di jànkonteel parce que en tant que communicateur da ngay génn di wax benn vaccin maanaam am influence yu nekk ci mbedd mi yoo xamee ni maanaam fa seen xam-xam egg maanaam ak fa seen xalaat egg maanaam day yàq. parce que dañuy ñëw dem demoon na ba ci toqantal bi ñuy defal xale yi ñu ñu ciy def ay influence yoo xam ne te loolu lépp médecin du génne loo xamee ne day faagaagal wala muy lor doomu aadama kooku état ñemewu ko doomu aadama bi nga xam ne moom lañ teg ci comité santé ñemewu ko parce que luy lor kenn du ko indi ci aw askan kon yaakaar naa ni lii dafa nekk njëriñ loo xamee ni askan wi yëpp mën nañ ci bàyyi xel askan wi yëpp mën nañu ñëw vacciné wu ndax njëriñ la képp koo xamee tey dégg nga communiqué bi nanga bàyyi xel ñaaxaat sa njaboot ñu ñëw vacciné wu yow mii kilifa kër ga tamit nga ñëw vacciné wu merci beaucoup. Euh, ñu ngi lay nuyu euh, tey ñu sa teewaay fii ci li nga xam ne mooy centre de santé bu nga jël sa dose ngay euh, président zone bu Géoul tey. Hmm. jiite li nga xam ne ñooy ndaw ñi tey yan message ngay lancé ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu sport bi ci wàllu ñam mi. maaleykum salaam ñu ngi lay nuyu di nuyu ñu jiite béréb bi yëpp. di kontaan aussi si suñu teewaay donc di leen remercier donc suñ teewaay tey fii mooy sensibiliser jeunes yi ñu ñëw vacciné wu. ndaxte boo xoolee depuis le début de la pandémie amoon na benn accord bu amoon entre ONCAV ak euh, nguur gi pour ñu mën a organiser nawetaan yi donc accord moo doon lan moo doon ASC yëpp dañoo waroon a surtout joueurs yi doon football ñëw vacciné wu en plus. rôle ASC du fu football rek donc lii tey dañ see war a participer sensibiliser nit ñi nit ñi am confiance xam ni tey ñi nga xam ne ñoo ñuy vacciner ak ñi nga xam ne ñoo ñuy woo ay sénégalais lan te duñ def mukk loo xam ne daf ñuy daf ñuy ro daf ñuy lor. donc ñi ngi woo ñëpp daal ñu ñëw donc vacciné wu parce que amaana am na réew booy dem da nga koy wër. kon tey bu ñu demee ba ne buñ groupe ñu fekk la sa dëkk ñu fekk la sa koñ kon je crois que opportunité boobu boo ko amee danga ko war a exploiter.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 asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki géewul maa ngi leen di nuyu kenn ku si ne sa tur ak sa sant di leen ziyaara di ziyaare mboole mu jullit ak képp koo xamante ni rek ñaa ngi ci géewul ak lu ko wër ñëwoon teewoon fii rek ci centre de santé bi ngir vaccin yi ñu fi doon def ci wàllu Covid di ci soññee ngir képp koo xamante ni defoo ko woon rek soo ko mënee tam dal sa xel nga ñëw. teew ngir def ko ndax vaccin yaa ngi fi doon soññ képp koo xamante ni rek yaa ngi ci géewul ak lu ko wër saa yoo ko mënee vaccin yi disponible na bu daree sa xel nga ñëw def ko incha allahu taala baax na jërë ngeen jëf. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp man la bàjjen ko du di leen fàttaliwaat troisième dose bi rek troisième dose bi am na njariñ lool surtout na nga war a génn soo jël troisième dose bi. foo dem dañ lay téye te troisième dose dina la aar ci lu bëree bëri ndax Covid ba léegi jógagu fi surtout ñun fa ñu demoon mi Madrid lu nekk daj nañ ko pour jàll ñuy xool ndax am nañu am nañu Covid bi wala amuñu Covid bi donc bu kenn tayeel na ñëpp ñëw ñakku seen troisième dose jël seen carte def ci seen poset boole kaag nag sax bu màggat ba ngeen jëkkoon jël ku jëloon ñaar na jël beneen mu nekk troisième ku jëloon na ñëw jël dose unique bi loolu moo gën a wóor ngeen rek di xaar. naan Covid bi jeex na te ngeen takk seen masque yi ndax masque yi dañ cee bokkaale wasalaam. Euh, Badiane Codou euh, en tant que euh, bàjjanu gox ñu gis ne jege nga askan wi loolu di duggante ñoom di waxtaan ak ñoom tey mu gis vaccin bi nga xam ne ñi ngi ko déroulé ci li nga xam ne mooy centre de santé bi tey yan kàddu ngay gën a ñaax jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kër yi surtout ñoom ñi nga xam ne ñoo yor xale yi ci wàllu ñàkk bi. ma leen ñaax ñàkk yi moom kenn du ko ñëw leen ngeen ñekku nee nañ leen def nañ ko vendredi jeudi lundi ba vendredi de huit heures à waa à treize heures ngeen ñëw ñekku chaque jour la ngeen ñëw ñekku su ko amul woon troisième dose ci Covid bi na ñëw jëlal ko ku sa doom ñekkul woon na ñëw ñekku ko chaque jour ma wax leen ko man fu ma dajee ci ñoom fu ma am dajee ci ñoom danaa leen dugalal ñekk yi ba nga xam ne leer na ma ne même Espagne ga ma demoon euh, jàkkaarloog Espagnol yi sax wax naa leen mbirum centre de santé bi wax naa leen lépp. wax naa ne fii jigéen ñi jaate dañoo sonn ndax jigéen ju nekk dafa war def CPN ba ba mu nekk kaat wala 8 te amuñu xaalis wax naa leen dañoo war a ñakku te amuñu fu ñu féetee dama doon wut projet boo xam ne vraiment bëgg naa jigéen ñëpp am ci wàll kon nag jigéen ñi nañu am fulla ak fayda itam nu góorlu ndax wér-gi-yaram kenn waru ko gën a bëgg kenn kenn ku ci nekk sa bopp koy wutal ak sa doom ak sa njaboot ndax bu sa doom feebaree doo am jàmm bu sa jëkkër feebaree keneen ku mënta feebar yow ci sa bopp doo jàmm kon nag ñàkk bi mooy aar ñëpp nañu ñàkku tey ñëw ci centre bi di xool ba xam lan moo fi xew. merci euh, mm-hmm. mm-hmm. Mm-hmm. li mooy euh, jëkk a def mooy euh, rafetlu mbir mi di gërëm aussi personnelu centre de santé bi. di teg lépp ci loxo responsable bi madam madame Ndiaye ah di wax nag euh, population yi ni leen euh, faggu moo gën moo gën faju te feebar bi li mu def nit ñi teg nañ seen bët kon te vaccin yi aussi nekk na loo xamante ni nii lu jafe woon la te mettre nañ ko à disposition amul fay amul dara vraiment li ñuy demande mooy nit ñi ñëw bañ ko wàcc ñëw ñëw ñàkku bu ko defee danañ nekk en sécurité danañ aar seen bopp danañ aar ñi leen wër maa ngi leen di gërëm di leen sant. lu ñu war a xam ne ñoo ne ñoo ci kër yi xaw a ragal ci vaccin bi tey ak kàddu nga leen di dolli pour ñu mën a ñeme mën a jërëjëf Alpha ñu ngi leen di sant ci opportunité bi ngeen ñu jox ñu wax nit ñi eh, parce que souvent lii tey nit ñi ñàkk xam doomu mais bu nu gisee nit ñi ñëw ñàkku gaññu yuuxuwunu dèjà mettiwul benn ñaar ñëpp dinañu feebar ni mu def ci réew mi ni mu def ci àddina alors euh, ni ko ngóor si ma jiitu waxee léegi fagaru moo gën faj te ñu aar la nga aar sa njaboot aar ñi ngay liggéeyandoo aar ñi ngay dajal parce que déjà ñu ñàkk la possibilité ngay wàll keneen dèjà di wàññeeku lool loolu mooy aar te borom kër gu nekk war naa def loolu non seulement pour moom mais jiital njabootam ñun ñëpp ñëw def feebar wàññeeku bu baax bu ngeen xoolee fan yi ci bulletin yi di gars yi joxe mooy wane ni nit ñi Sénégal en tout cas na moom meloon ci début ba melatu ko parce que nit ñi def nañ seen première dose. def nañ seen deuxième dose man démb dama amee njaay romb rek ni ma troisième dose jox ñu dem léegi maire yi am réunion ñu bàyyi fare ñoom bi maire yi commencé jekk ñoom ñàkku si pour wane ne donc xam nañu importance am suñu njaboot bu soobee yàlla ñoom ñëpp def nañ deux doses daañu def troisième dose bu soobee yàlla ñuy ñaax waa dëkk di leen ñaan ñoom ñëpp ñu ñëw def seen deuxième dose euh, seen troisième dose pardon donc euh, ñu leen di remercier di leen féliciter ngeen continuer ko waa dëkk bépp gis ni du dara mettiwul te lu war la jërëjëf ñu ngi leen di sant bu baax a baax. Mamadou Ndiaye. waaw kay Amady Ndiaye ñu ngi leen di sant bu baax a baax. merci merci. continuation.